c'est important c'est important waaw waaw nañ leen di nañ leen di honorer ci période bi nga xam ne ñu ngi dund. bàyyi bañ a bàyyi bañ dem. ñuy soog ñuy soog a wax seen ay baax-baax. parce que tamit nit ki boo koy honorer mu def yàgg défendre couleur nationale da nga koy honorer bi muy dund. mais doo bàyyi ba mu dem ngay wax ay baax-baaxam te loolu am nañ seetlu nañ ko ci suñu ancien gloire yi nga xam ne des fois dañuy am ay problème dañu am maa ngi liggéey ci liggéey boobu pour pour pour gars yi di leen jàppale ci wàllu santé xam nga liggéey boobu ñu ngi koy liggéey avec des assureurs couverture médicale universelle ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey mais nag il faut état bi appuyé ci parce que ñooñu tamit dañoo ils ont de choses pour le pays booy Bambara Mbaye Guèye et tant ay Papa Boston il a fallu que ay njabootam ñoo ko jël yóbbu ko à l'étranger est-ce que ñëpp ñoo am les moyens pour que il faut que état du Sénégal di rek. sport individuel yi sport collectif yi ñi nga xam ne dañu yàgg a défendre suñu ay couleur nationale dañuy feebar du ñu leen di utal ay ay wàccaay di leen xam nga loolu c'est pas bien te ñooñu dañoo sacrifier seen àddina pour défendre couleur nationale encore une fois ñu ngi leen di jaale yéen tamit la la presse seen partition dañ koy gis ci événement yu mel noonu ñu ngeen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen xam nga temps bi li ci di duuf ci nag yow xaju ci cin bi. mais ah. moom mag la euh, nga. xam nga teg nañ ko ci yoon parce que tamit bon xam nga Balla xam na Balla c'est un gars très généreux nit la koo xam ne tey papa ji yàgg na tëdd feebar moo doon gere toute la famille kon moom xam na fu war a jaar xam nga te te mag la kilifa la. ñu koy ñaanal yàlla rek yan bi yàlla taawu kër gi la du taaw sax am na ay frères am na ay sœurs mais malgré tout ça na jël responsabilité am ci yu bari kon boog ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yan bi woyof ci moom lool. yàgg na uuf ay njabootam yàgg na uuf ay njaboot gi yëpp bien bien avant que papaam di fi jógee kon boog continuité lay doon rek ñu ngi koy ñaanal yàlla xam ne dëj bi di dal ci kawam ñun ñëpp bokk nañ ko ak moom parce que mbër gënu ko ci làmb ji man gisuma ko parce que je collabore beaucoup ak moom ci association bi dañuy discuter saa yu làmb amee problème dama koy woo ñu discuter wax tirer ay angle mu conseiller ñu waxtaan il est bokkuñu écurie ay adversaire potentiel lañ mais saa yu ma làmb amee problème su ne ko Balla mënuma nii ak nii ak nii mooy solution. ak ay moroomam ay Boy Niang ay Modou Lo ñooñu ñëpp ñu ngi may jàppale ci liggéey bi xam na liggéey du nekk liggéey bu yomb liggéey bu métti la mais nag li ma ci kontaan rek mooy à chaque fois su problème amee rek ku ma ci woo di nga ubbil sa kanam ñu échangé loolu nag c'est pas facile parce que bari na ñu fi nekkoon ay président yu fi nekkoon yoo xam amuñu woon chance boobu amuñu woon chance su copter les ténors. te liggéey boo ci nekkee te sa frère yi suivre ñu dafay metti maa ngi leen di jaajëfal di leen jaal ñoom ñëpp ah encore une fois ñu daje géejawaay incha allah ok